Covid bii ñëw muy muy muy mbas mi fi amoon jaar fi ñu ñu ñu ñu quarantaine ci biir usine ba lu toll ci ñeenti weer bi yow loolu dogalee ñu am ay war ñu wuñ ñuy warloon ay prime yoo xam ne dañ ñu ko war di jox yàlla dogal ñu tàmbali ko benn yoon ñaareelu yoon ba ñu wàññi ko def ko juróomi junni ñetteelu yoon ba ñu ne duñ ko dootuñ ko nag joxe ginnaaw nag génnuñ ñu ngi ci biir usine ba mënu ñoo gis sunu famille ñun ñu génn def benn sitting suñu borom dogal ten gay lijjanti lépp ba teg ko ci aw yoon na kenn bu bu mu ko licencié mbir mi jeex na nañ ko bàyyi nii na ñëpp delluwaat seen barabu liggéeyukaay ñu delluwaat suñu barabu liggéeyukaay toog tuuti tabaski gi jub si comme nii yàlla dogal ñu dem repos teguñ ci dara ñu indil ñu benn huissier mu topp kër ku nekk jox la demande de licenciement licenciement maa ngi tuub